سبب غيبتي أن الله أراد أن لا نال منه جاها وأن أكون شافعا لقومي وأن أكون قادما في الدوم tax na heure boo xam ne war nañoo jóg mu jëm ci askan ginnaaw bu fukk ku tedd ki njëkkee maay ka ciy topp ndax bi ñu ko defee ci mbas mi gouverneur maay ka fa toppoon joxe juróom million bi ñu ko defee si mbirum ceeb bi maay ka si topp joxe fanweeri tonne bi ñu ko defee si mbënd mi maay ka si topp joxe fukki machine tey jii maa fi indiwaat lii loolu nag yow laa koy sant ndax nit ki bu santul nit du sant yàlla te li nga ma defal xam naa ko fi nga teg xam naa ko te li ko war lépp mooy bëgg gi nga bëgg tubaa ak bi gi ma nekk man sëriñ bi ak taalibe bi dong laay tey jii may wax ak yow am na ay wax yu bari yoo xam ne déggoon na mu jëm ci gan gi fi ñëw loolu tamit bëgg naa ñu leeral ko ndax tey jii bu ngeen ne woon bàyyi li ma nekk ma bàyyi bu ngeen ne woon demal nga teeru ko dinaa ko lal ay tàkk ruus jële ko dakaar ba fii ndax sëñ Tuubaa mën na may may na ma loolu te si yéen laa ko amee te fas yéeneen koo teer fas yéeneen koo teeral ni ngeen ko bëgg te ganuk sëriñ Tuubaa dañ ko war jàppale dañ ko war a teeru ndax li mu defal fii sëñ Tuubaa la ko defal kon tamit loolu wax naa ko pour ñëpp xam ni lii fii ñëw muy ki fi war a ñëw muy président la république li mu def fii sëñ Tuubaa tax mu def ko nit ki nag bu fekkee def na loo xamante ni maam sëñ Tuubaa tax mu def ko yow mi si war a moo waral rek kàddu yi nga xam ne ñu ngi doon dégg yëpp may ñëw pour dalal sa xel xam dara du fi am dara du fi xew dañuy fi ñëw delluwaat si jàmm ngay ñaanal ko ñaanal ñun sëñ Tuubaa lan gëm sëñ Tuubaa lan bëgg bëgguñu ngi nuyu kilifa yu tedd yi fi teew yëpp di ko tàmbalee ci sëriñ Bassirou Mbacké Abdoul Khoudous mi mi ngi fii suñu wet te at mu jot muy ñëw di ànd ak ñu liggéey bi te di ko defee yéene ak pëstef bu xóot xam ne lépp lu ñuy defal sëriñ Touba njabootu ak Cheikh Ibrahima Fall kenn wut leen caa jiitu. di ko sant bu baax di ko gërëm di ñaan ñu yàgg ko ànd te day cee ngërëmu Sëriñ Tuubaa di nuyu Sëriñ Cheikh Bara Abdou Lahad moom mi nga xam ne moom itam na mu ko daan defee ca nekku ak Cheikh Sidi Moustapha noonu loo koy defee ba léegi ne fan yëpp saa su xëyee li muy xat-xat ak yitte li muy bari bari day bàyyi lépp lépp ñëw ànd ak ñu liggéey ak mboolem mbokk yi fi teew yëpp bu ma limee damay juum di dellu am nuyoo euh, suñu doom Cheikh Abdou Mbacké ibnu Serigne Bara Dolly nga xam ne moom sax daa wax taalibe bi rek waaye doom la ci ñun ndax maamu Serigne Abdou xam ngeen ni mu demee ak Serigne ci ñaar wet yëpp ak ni mu demee soxna fa jëpp ba Serigne bi woo butu woon di ko wax ne ko sama doom nga moom kon foofu nga bokk ci biir yoon wi. maamam itam li li muy doon doon ci sëriñ bi ni ñëpp def la def mooy jaayante ak bokkam jënde ko ak taalibe bi liggéeyee sëriñ ci gànnaar ba sëriñ bi wàcce ko tofal ko mbooloo comme ni ñuy defal kilifa yëpp kon boo dellusiwaatee fii yàlla def nga yëngutu ci wàllu àdduna lépp lu fi xew lu ne nga wane sa yitte wane sa taxawaay wane sa parce que loola dañ la ci sant di la ci soñ bu baax te dunoon tam lu ñu bett ñun ci lu ñu bett ci ndax euh, seen waajur du Serigne Bara seen waajur Serigne Bara yàlla def na muy sama wóllër wu yàgg wu yàgg lool am ci man ak cofeel ak jàpp boo xamee dara disu bi yàlla defee ñu fal leen député yaa ak sama sëriñ Cheikh dafa dem ci sëriñ bi jóge fa yaakaar naa suñu Sidi Muxtaar moo fi nekkoon booba bi mu dikkee mu ànd ak yéen fii ci jataay bi ñu toog tey fii la ma ko waxee woon daal ma leen dénk xamal ma ne ma daal na nga xam ne say doom dañ say taalibe lañ lépp loo dégg ci ñoom lu ñu war sa def bu ma ci xaar nañ leen woo ba ñëw nga wax leen ko te xam naa lépp loo leen wax danañ ko def kon loola awma ci sikk sàkk ndax nit moom noo ko jàppale xam na ko te li ngay def ci suñ jëm bi itam da koy def ngir jëm suñ Tuubaa loolu moom xam naa ko ci yow soxla woo maa dégg soxla woo maa gis da ngay def ngir jëm suñ bi rek waaye nag moom moom koy defal nag am na am na am na bay kon lii nga wax léegi itam daanaka jërul dellusiwaat sax waaye loolu moom séntuwuma ko jëm ndax sëñu ko sax ndax fi nga fi nga bokk sama am sëñ bi ja ab sëtam sëñte ne ci biir Tuubaa suñu taxaa di santaan dara mu cay mu cay mu naan danaa ko def loolu moom mm-hmm. ko xamutu koy xalaat waaye yéen sëñu leen ko te bu ngeen ko naroon def sax kon moo woo leen bi nga ñëw tëral leen ko waaye li tax waxuma leen ci dara mooy xam naa ne du ngeen ko def loolu moom daanaka jëru jëru sax dellusiwaat jëf ji nga fi indi te defoon ko daaw muy jëf ju rëy te li fi xew lépp it noonu nga koy defee loolee itam gis nañ ko waaye nag ki tax nga di ko jëf mooy Sëñ kon yàlla na da ci fay ndax sëñ moom lu ko waay am na am na pay lii nga fi indiwaat ren itam ngir dëggale ko waxee sëñ bi. ngir ndax ñun ni ma koy waxee rek lépp rek yaakaar yàlla lañ ci yaakaar looloo ci Sëriñ Tuubaa li nga xam mooy wàllu saahir si nga xam ne nag suñu borom moo ko santaane loola lañu ci war ci wattandiku ak fexe ba ku fi ñëw ku ne la la war ci aaru ak sàmm nga def ko kon lii ci liggéey boobu la tàbbi moo taxee sëñ Abdou Lahad Bousso mi jiite daayira Muqaddamatul Xidma moom laa wóor teg ko ci loxoom bu defee ñoom itam ñu jël ko téye ko ngir fes fes fexe loolu dana doon ndimbal lu mag ci seen liggéey bi ci ñoom ndax ñu ko doon ñu leen ko waroon a jox kon yàlla def na li fi jotoon daje sax jotuwuñu leen ko jox kon jëf ji moo ci ñi ko tàbbi ci ñoom ñu jox leen ko ngir balaa kenn dugg ci biir rek ñu ñu man la koo jox mm-hmm. ndax loolu itam bokk na ci li sàmm ndax ñëpp tolloo wuñ gëm-gëm ñëpp tolloo wuñ giseen kon nag laa darara wala dirara kon ku ko gëmul sax war koo def ngir wattandiko sa mbokkum julli bi nga xam ne nekkut foofa mooy li ma ci waxoon bi yàggut kon ñu lay sant bu baax di la gërëm sababu xaybati an laa araada an la naala وأن أكون شافعا لقومي وأن أكون قادما في الدوم